li ñuy njëkk a seetlu bi ñu ñëwee ñoom li ñu doon ut moom mooy naka la ñuy def ba jàppale jàngale bi ci euh, xale yi ndar yi ci boobu liggéey nañ ci lu bëri bëri ba pare aussi am na beneen njàngale boo xam ne xale yi nga xam ne nekkatu ñoon ci école yi naka la ñuy def ba dugalaat leen ci école yi USAID dem na aussi ba nga ñi nga xam ne dañoo laago ba neewatu ñoon ci école yi USAID dimbal leen ci ay matériel ay bagage jox leen ay ay welo pour ñu mën a dem école yooyu nag aussi su may xayma bu ndaw rek am na ay résultats yu ñu jox nañ wax ne USAID jàppale na ñaari junni ak juróom-ñett ak juróom fukk ak juróom ay xale yoo xam ne indiwaat nañ leen ci biir biir école yi ci mbirum daara tamit na jàppale daara yi daara ñu tuddee daara communautaire mun nañ wax ne jàppale na ñeent fukki daara ak juróom maanaam mu toll ci euh, ñeent junni ak ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett xale yoo xam ne dañu leen dimbale ci biir daara yi soo jëlee tamit dafay dem ci éducation de communautaire de base ak li am solo aussi moom mooy pexe ba xale yi di liggéey forme leen ba ñu bañ a génnati dëkk bi di dem feneen mais ñu toog ci seen dëkk te loolu rek éduqué ñu ngi ci jàppale lu mat ñaari junni ak téeméer ak fanweer ak benn jeunes yoo xam ne jox nañ leen liggéey former leen ba ñu ngi demal seen bopp ñii ñu ngi ci agriculture bi ñii ñu ngi ci élevage bi soo total bi yëpp na soo xoolee ci xale yi ñu jàppale ci domaine boobu rek ñu ngi toll ci fukk ak benn junni ak juróomi téeméer ci biir école yi nag nga xam ne nguur gi la USAID jàppale na ci formation formation d' abord jàngalekat yi jàngalekat yi formé nañ ci lu bon ñett junni ak juróom-benn téeméer ak ñaar ay jàngalekat yu ñu formé directeur ak yi formé nañ ci lu mot juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ak juróom maintenant li nga xam ne moom mooy élèves yi nga xam ne mën nañ leen indi jàngal leen ba nga xam ne réussir nañ mu ngi toll ci. ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaari junni ak ñaar téeméer eh, topp toftal ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar. même en dehors de la formation en dehors après bu ñu paree seen formation bu njëkk euh, bu ñu continuer bu ñu nekkee ci classe yi mën a continuer gën a yokk seen xam-xam ci jàng bi foofu la. semaine ñooy jàppale un peu USAID passerelle sur pour mën leen permettre ñu am benn outil benn jumtukaay boo xamante ni moo leen di fu ñu toll mën a mën a gis seen jumtukaay yu leen di permettre yu leen di jàppale si seen euh, liggéey bu ñu paree nag am na beneen pàcc boo xamante ni moo nekk éducation la suñu suñu ministère moom mooy gérer tout ce qui est moy jël lépp loo xamante ni mooy formation ak communication moom mooy jël outil mooy jël jumtukaay boobu yóbbu ko pour que enseignant yépp yu nekk Sénégal mën ko fu ñu toll mën ko xam ko ak mën ko jëfandikoo. projet bi dafa nekk projet boo xam ne nii élément ministère bi yëpp la jël am na non formel am na formel am na inclusion formation au métier yooyu dafa di projet boo xam ni dafa dafa am solo ci li ministère bi nekkoon ci loolu loolu la ñu projet fekk li ci am solo nag mooy projet bi ñoo ngi koy defee ci sud bi Ziguinchor Sédhiou Kolda ak Kédougou mais lépp fi lañ koy xalaatee ànd ci ak équipe équipe projet bi loolu dafa am solo leneen loo xam ne aussi dañ koy remarqué mooy en tout cas mébét yi amoon yëpp romb nañ leen benn rek moo ci xaw a sooxee

résultats yu bax yi yin ci am yëpp nañ ko jël ñu intégré ko ci dispositif ministère bi pour que vraiment ñu ni lii ci projet USAID la jógoon leen nag dafa am solo liggéey bi am na solo rafet na mais il faut ñuy communiquer li ñu gis fi daal vraiment war am nañ ci élément yoo xam ne war nañ cee taxaw dem ci plateau yi expliquer nit ñi dem ci rajo yi dem ci journaux yi loolu daal yaakaar naa ni ministère dina ko def mais équipe projet bi tamit comme projet bi day waaj a jeex laaj na aussi ñu ñu gën cee communiquer waxtaan ci ak ñëpp